xam président de la république président de la coalition benn Bokk Yaakaar son excellence monsieur le président Macky Sall yaa ngi tànn ñu jiital li tubaab di wax intérêt général moo di njëriñ ñi ñëpp jiital ko pour réew mi Sénégal pour jàmm réew mi pour itam réew mi jëm kanam président teg ci ne lii nga xam ne mooy bëgg-bëggu Benno Bokk Yaakaar commencé ji moom mi nga xam ne mooy président Benno Bokk Yaakaar te li nga xam ne moo mosa a dajale Benno Bokk Yaakaar ba élection bu mos am ci réew mi depuis 2012 ba ñu sosee benn Bokk Yaakaar ba tey temps bu ñu demee élection gagné nañu ko loolu yëpp la dajee dajale tax mu am moom ci boppam mu wóor ko ne ko suñu góorgóorloo ànd joxanteloo diisoo ci suñu diggante ku nekk xam ne njëriñu réew mi moo nekk ci lii tey ñu ñëm ñi joxante loxo ne loolu moo tax ba mu ko dajalee yëpp le 3 juillet 2023 bi mu waxee ak askan wi ak réew mi ak Sénégal mu ne moom élection bi di ñëw mois de février 2024 du ci présenté candidature mu ne nag yéen samay soppe cher leader bi nga xam ne amoon nañ ko fii ci fii béréb bii mu doon le 10 juillet 2023 muy daje suñu coalition yéen a ma waxoon ne ma dénk ngeen ma mandat boo xam ne dama koy seet topp ko ba mën a fexe ma waxtaan waxtaan yu yaatu ak Sénégal yépp nga xam ne ñu bokk coalition benn bokk yaakaar te concertation yooyu muy waxtaan yooyu ak sotti wante xel yooyu le liñ ci doon wut moo di ñu am koo xam ne dañ ne kii mooy candidat benn Bokk Yaakaar ne ñëpp jóg ñu ànd téewante dimbale ko pour mu gagné élection yi di ñëw incha bu neexee yàlla suñu borom def di nag loo xam ne yombul te métti na waaye nag li wóor moo di tànn dafa yombul ndax ku tànn wàññi nga ku tànn wàññi nga loolu moo tax ma waxtaan ak ñu bare bare bare ñoo xam ne romb na sax candidat yi xam ne waxoon nañ ne dina candidat la candidature def ay consultation ak concertation nu mu gën a mën a yaatoo pour mën a ni ki bés bi tey ma ñëw ne leen kii laa leen proposé loolu moom def naa ko def naa ko bëccëg def naa ko wutuma ci son wutuma ci leneen def naa ko ni ngeen ma ko ñaane woon ma def ko bi processus boobu ba mu ubbeekoo jël naa ay personnes ressources yu bare bare bare bare bare ma jël leen ci ma jiital ca président Moustapha Niass ak ni ma jege ma jël la grande majorité des candidats à la ku ci nekk waxtaan ak yow ma ko waxee ne ko na waxtaan ak ñooñu waxtaan ak ñoom ba mu waxtaan ne ñoom ba pare ba defal ma compte rendu waxtaan nag ñoom ndax benn tànn yomb mu dee ma bëgg wax ne leen bi nga xamee ne tànn boobu maa ngi ci te pareeguma proposé woon naa sax une sorte de primaire maanaam ñu dajale ñëpp dajale candidat yëpp ku nekk ñu seet ñaata waa nga am ci kuréel ba ñu dajale ka jiitu kooku nekk ca waaye jéem boobu dañ ko finalement féetale boor ndax la plupart des candidats nee nañu liñ ci doon bañ moo di lu mel noonu indi ay ay division maanaam ñàkk a juboo boo xam ne dana indi problème coalition bi loolu moo tax choix bii nga xam ne def naa ko tey choix maanaam tànneef kii ma teppee proposé leen ko tey mooy li ñu wax ci tubaab un choix concerté et collégial maanaam dafa tegu ci roofoo tiisoo waxtaan lu gën a yaatu moo tax lii tey ma indil leen bi ma dégloo ñépp nag après ma seet ma déglu kii ñi ñi seen xalaat ñii xalaatu ñee xalaatu ñee ma boole nag li nga xam ne moo di li nga xam ne mooy xaar senegal ci Afrique de l'Ouest continent africain àddina bi loolu moo tax yépp laa boole nag ndax li nga xam ne moo ci jiitu mooy li tubaab la préservation de la république moo di aar Sénégal la république du Sénégal un peuple un but une foi stabilité moo di yépp tey lépp tey mel ni ndox mu nax nga teg ko bi yépp tey moo lu ñuy stabilité ci li nga xam ne nag mooy le plan Sénégal émergent mooy doju dënn bi nga xam ne ci lañu ñu teg nag Sénégal bu démb bu tey ak bu suba muy koy wax plan Sénégal émergent président mu ne fan lañ bëgg a yóbbu Sénégal où voulons-nous conduire le Sénégal avec quelle coalition d'avenir et quelle vision du Sénégal en Afrique dans le monde ak ban kuréel boo xamee la ko yenu mooy ànd nekk benn benn xelaat xam fa ñu jëm ak nañ fa jëmee loolu moo tax quelle ab quelle coalition d'avenir mooy benn bokk yaakaar et quelle vision du Sénégal naka lañu ñu gisee Sénégalu tey Sénégalu suba ci Afrique ak ci àddina bi les critères de sélection maanaam kuréel yi nga xam ne moom la ñu jël bu ci nekk njël la ca gën la ca gën a sell la ca gën a seer la ca gën a baax la ca gën a jub critère de sélection yooyu booleen naa ci kii nga xam ne maa la ni koy proposé compétence professionnelle moo di liggéey bu ñu ko mos a jox wane na ca xam-xam ak xarale ak xam naka lay doxee ak naka lay doxalee une seule une une une, une carrière maanaam koo xam ne fa mu jaar jaar na ci ay montagnes jaar na ci ay géej jaar na ci ay ndox jaar jaar na ci ay ay ay ay ndox yu ndaw jaar na suuf jaar na fu nekk muy loolu moo di moo tax mu ne une carrière diversifiée de fonctions déterminantes ñu dénk ko mu ŋànk loo xam ne dafa am solo te jafe et transversal maanaam boo ko dugalee ci néeg bu am bunt xam na nu muy def boo ko dugalee ci néeg bu amul bunt xam na nuy def boo ko dugalee néeg boo xam ne amul benn bunt xam na naka lay doxalee ba li nga xam ne sant lañ ko mu def ko na mu waree mu teg ci nag mu ne décision bi nga xam ne indi naa leen ko tey bokkook yéen muy décision Benno Bokk Yaakaar maa ngi ko motiver qualité d'humilité moo di ku nekk nit xam fa ngay yem xam lañ la jox naka ko war a toppatooyee doo fëgg dënn doo kuntaaba mooy humilité doo fëgg dëggu kenn doo kuntaaba kenn mu ne mu ne humilité écoute pour diriger di déglu doomu aadama yi ba la ngay xam la ngay def ndax yaa leen jiitu pour rassembler dans pour dajale ci benn Bokk Yaakaar ak ci biir bi ci benn Bokk Yaakaar fii ak ci diaspora bi Sénégalais yi ci biti fàttewuñu leen ñoom ñëpp laa dajale laaj leen seen xalaat bi fii mu ne nag loolu moo tax ba ma seetee ñëpp yëngal ñëpp déglu ñëpp pesé ñëpp ma ne Amadou Ba premier ministre moom laa leen proposé comme candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la grande coalition majorité présidentielle pour ñu tabb mu yore drapo benn Bokk Yaakaar élection bi di ñëw mois de février 2024 mu ne Amadou Ba moomu leen nag xam ngeen ko mën na nekk njiit boo xam ne dafay dajale parti bu mu bokk ci coalition bi mu bokk ak bét romb coalition bi mu bokk xam na itam li ngeen xam yéen ñëpp muy plan Sénégal émergent ngeen xam ne fi mu nekk nii ba deux mille trente moom la ñu def kuréel yi nga xam ne ak motuwaay yi nga xam ne ak jumtuwaay yi nga xam ne moo indi la poursuite des politiques économiques maanaam lii ñu tàmbali ba mu indi lii ngeen gis lii ngeen dégg lii ngeen di laal li ñëpp di profiter moo di les la poursuite maanaam continuer lii nga xam ne fekk na ko fii mu yootu ko yaatal ko yàqal ko dëgëral ko mooy poursuite des politiques économiques sociales et environnementales bu ps e. mu ne buñ ñu loolu yëpp taxawee nag par conséquent ñu ngi leen di ñaan ñu demande leader képp ku yàlla def nga nekk jiit responsable nga yore ndombo tànk militantes et militants moo di ay soldats yu jigéen ak soldats yu góor ak sympathisants ñi teg seen xol ne war nañu ñu fekk ci dimbali ñu jiit yoon bii nekk mooy sympathisant ñu soutenir candidature boobule qui est la seule et unique candidature de Benno nga xam ne moom laa leen proposé te mënul am keneen ak fu mënta jóge mu ne candidat Benno Bokk Yaakaar la mu ne la seule et unique candidature de Benno mu leer mu ne xam naa ne liggéey boobu du yomb xam naa itam ne bi nga xamee ne ñu ngi koy taxawal défi moo di li nga xam ne dangay xëy gis ko mu jaaxal la waaye nga fermer sa bët dugg ci moom ndax yaa nga xam ne mu ngi jëm ci kar mu ngi jëm ci kaarale muy la nga xam ne na nga xam ne mooy aar Sénégal ci li ñu wër ak li ñu wërul ak lu jege ak lu sore bi nga xamee ne nag la ko gën a waral moo di ci ay weer ci kanam pétrole bii nekk ci suufu Sénégal ak gaz bii nekk suufu Sénégal dafay commencé génn attention loolu boo ko amee da ngay moytu màndu seet fa ngay teg sa tànk ak na nga koy doxalee te yaakaar nañu ne président de la République depuis lu mat ñetti at ñeenti at kuréel yi mu taxawal pour pétrole bi ak gaz boobu jig ñu moom def na ko ñun ñoo dese di ci des mu ne je également que tous uni xam naa ne ñu ñëpp bu ñu àndee derrière notre candidat ci gannaaw suñu candidat wër ko ànd ak moom soudé et solidaire mooy weñ goy jël nga soudé ko te lekk ca biir nekk benn lu saurons vaincre à nouveau danañu gañewaat bu neexee yàlla élection bi di ñëw ni ko comme ni ñu ko yàlla dimbalee ñu def ko depuis 2012 élection mës am def nañ ko fi mu ne pour toutes ces raisons mu ne yooyu yooyu ma wax yëpp nag moo waral je lance un appel vibrant maa ngi ñaan ci lu gën a am doole l'unité pour que ñu nekk benn ànd nekk benn bopp benn yuur benn bëgg-bëgg benn yaakaar benn loxo jàppalante ñu jëm si kanam pour candidat yi nga xamee ne waxoon nañu ne bu ngeen ne candidat maa ngi leen koy ñaan ndax ñoom ñëpp amoon nañ ko ci nekk argument boo génnee pour wax ne da nga ne candidat loolu yëpp d'accord nañ ci waaye nag maa ngi leen di gërëm adressé mes remerciements pour leur capacité à appréhender les âges et les priorités car sama waxtaan yi waxtaan ak ñoom ci bi ñu tàmbalee lii ba tey muy le 10 juillet wan nañ ma ne ma bugg nañu réew mi xam nañu réew mi ñu ngi prêt pour xeex pour réew mi sama gannaaw ci gannaaw bennoo ak gannaaw candidat bii nga xam ne tey bugg nañ ko tàbb fii te ñu def nag ci kanam bennoo bokk yaakaar pour mu continuer ni mu mel nii tey ñu woote lu ëpp juróomi téeméeri ñëw wuy si ku nekk yaa ngi déglu li ñuy déglu bi mu waxee ba pare ñun ñëpp a taxaw ne ko lii nga wax ànd nañu ci nee nañ maa ngi nekk disposition képp ku nekk ci bokk benn yaakaar ci li ñu war a def suba mu des nag dernier paragraphe bi mu ne ensemble maanaam ñun ñëw nous sommes à même de conduire am nañu kàntan conduire notre coalition suñ coalition bii ñu yóbbu ko ci élection présidentielle bii ñëw en faisant preuve de dépassement patriotique ku nekk fàtte sa bopp ngir réew mi fàtte sa bopp ngir Sénégal fàtte sa bopp ngir liñ fi defagum ak liñ fi yaay fas yéene def ko mu tekke pour faire corps avec le candidat Amadou loolu yëpp nag ñu téye ànd ak candidat Amadou Ba bu ko defee afin d' assurer le triomphe de l' général pour nga xam ne mooy njëriñu ñëpp mooy kaaraange ñëpp mooy yaakaaru ñëpp mooy li ñëpp mën a defar bu ñu àndee ñu ànd ko ak Amadou Ba pour l' intérêt général contre l' aventure pour moytu.